Oh.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 leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na Nafi ngoom Keïta moom ku jara yërëm la ndax saa bu rapport génne gars yi te ci kawam exclusif yéen kaay ne moonte moom liggéeyam rek lay def la mu def moom Moustapha Cissé Lo mooy taxaw assemblée nationale dugg attaqué Moustapha Niass yaw seetal nee na ko yow Moustapha fa mel ne daal fa ngaa soxor wala ba fa ngaa fiir député CEDEAO yi nga xam ne Macky xebal na leen fa ñu def liggéey bu mucc ay bu ñëwee kay li a wax ci sax rafet lu ko waaye mel ni ci dara ba taxawal fajir yéen kaay ne Cissé ay bomb ci kaw Moustapha Niass podcast.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 yi saxala tane